oto bloqué te pendant ça Sonko avait un cortège Diomaye am cortège am noo koy mën a ku ci nekk am cortège ñoom ñooy opposition te ñun parti au pouvoir mënuñoo am sax ay oto yu ñu dawal. en tout cas loolu gisee bi kañ la digganteem ak Macky Sall. seen gisee bi bu mujj bi moom moo ko jox avion militaire mu dem vote ji Ziguinchor aéroport militaire boo la jaar laajte leen ndax Sonko bu muy dem laaj leen ñu ñu waa AIBD est-ce que gis nañ Sonko waa Sonko waa am la jaar bu dem vote mais xam hmm. ngeen ne opposant bu jaar aéroport militaire Wakam avion militaire. waaw kooku ku ko ko jox. Hmm. da ngeen da ngeen doon da ngeen defee dam leen defee ay investigation. est aussi bi muy nekk ci kaso bi ci négociation yi ñuy wax est-ce qu'il arrivé une fois mu dajeeg moom. daan nañu wax téléphone ñoom ñaan dañu leen jokkoo même vidéo bu bu Sonko def bu ñu nee Sonko dafa xamoon ne du nekk candidat. oui bu muy def vidéo boobu. Hmm. mais dam leen di xoolal expériment ci kaso bi ko defee. qui l'a la permission. Mm. il faut que ñu xëppi suñuy bët sax saalituñu nag saalituñu de ay gor lañu on reste toujours gol mais lu ñu metti mooy la trahison bu ñu am bi ci en interne bi mooy jiital te ba lu gën a garaaw mooy président Macky Sall dafa wax ay responsable yi nekk Fouta dem ne ngeen campagne comme Fouta xam na ngeen ne mënuñoo ñàkk mais problème bi mooy dem dem bu ngeen demee seen militants yi nekk Dakar wala ñu batal Diomaye del def un deux trois quatre cinq ah yow li nga bëgg rek man loolu laay de du dëgg. na rafet waaw ah, bu ko na ray mm. ayca yow nga jëm yow. x nga jëm yow x nga jëm. def loolu x. baat bi jàngat nga am ci kàddu yi nga xamante ne euh, Omar Sow yëkkati na ko. xam nga jàng ma ay waaye yàlla dafa wax ne. mi ngi ànd ak aj ñu gëm ak ñi mën a muñ mm-hmm. gis nga boo nekkee ci pouvoir yàlla teral na la mm-hmm. donc bu demee ba jeex dangay gëm yàlla xam ne lii jeex na mm-hmm. li mu fi wax yëpp yëpp yëpp yëpp xale bu lii boo ko yeewoon déglu ko lii mu wax lii bi na jóg dox daw waaw fu mu daw jóg utal teg ko fii tegal ko audio yi nga xam ne kii teg na ko kon xam nga li xew mu jóg daw li ma ci gën a jàpp muy wax ne matérielu Amadou Ba dañ ko téye woon nag ñëwul. Mhm. buntu APR fi lañ ko wàccee car bu mag genre conteneur yooyu noonu. Mhm. lañ ko wàccee di ko dugal. Mhm. mooy biñ naa dañ koy changé duñ ko changé booy mi génnee vidéo yi ne suñu matériel bi ñu naka campagne suñu ay t-shirt yëpp ko t-shirt fan la jógee. moo ma jaaxal yeneen bagage ak yi mu doon campagne fan la jógee yi seen tissu moom bari woon na ci. fan la jóge kon ba tey conteneur dañ ko bloqué kan moo ko bloqué ak ban intention moo tax mu bloqué ko. xam nga ñii. mooy li ma la wax dañoo teel a wu te nit ñi nar a opposé wu baaxu parce que opposition du doxee nii soit ñu demaat xool ci vidéo opposant yi fi nekkoon ñu ciy jéem a jàng parce que xam naa ne xamuñu opposition naka lay demee. Mm-hmm. tey moom ku ko fekk muy wax li da nga koy xeeb. Mm-hmm. war nañu xaar leneen tey mu wax ko ak grandeur. Mm-hmm. waaye toog naan ay eh, eh, vidéo Ousmane sonk bi eh, ci prison ba la ko defee loolu amul. ñii mooy ay nit yoo xam bu ñu amee ci yow preuve bu ndaw. dañ koy génnee. Mm-hmm. Ousmane Sonko bu yëgoon ci avion militaire tey jii dem voté ji ñoom ñoo njëkk génnee photo yi ak vidéo yi. Mm-hmm. Ousmane Sonko waxtaan waxtaan am na. Mm-hmm. waaye du waxtaan boo xam ne le président Ousmane Sonko moo ko sàkku. njiitu réew mi moo dem toog ba xam ne yëf yi mënatul dem moom mu sàkku waxtaan xool ñoo xam ne wóolu na leen mu jël leen yónni leen. te ba mu leen yónnee itam kee la mu tontu wax nañ ko. xam nga ku ko yab. Mm. da ko fekkoon kap yooyu mënut a tontu. waaye ba mu xasee ba génn ba toog ba ñu xam ne waa ji génn na. Mhm. képp ku doon wax say wax yaa ngi ko doon seggaat di ko xoolaat ñi ko doon waxal ñëpp ba mu génnee wax waxaatul. Mhm. moom fi mu toog wax na ne waxtaan am na. Mhm. waaye ñi ñëwoon waxtaan ak la ñu wax ak la mu leen tontu kon tey moom moo ci am ndam. parce que yaa jàpp nit ki tëj. privé de liberté. lu ndaw lam leen njëkk dugal coup mooy ba mu voté yee ba ñu tàllal leen baaraamam yéen a ngi fàttali ba saba si fay naan mbir mi fi dèjà ñu mu tàllaleen leen baaraam ne leen kon voté naa génne loxo bi def ko nii. muy benn. Ousmane Sonko def gaaw na ah. Ah, moom dañ ko rajo woon. nan def ba ci diggante bi ñu. naa bokk rek am na moom tam voté na. Ah, baax naa voté rek. dañu bëgg def ko dañu dañu doon doon rek. waaw xam nga voté na dafa la voté Ziguinchor la voté tey kii ne. <laughs> mami bàyyi su may wax. <laughs> nga may nga neetaan bu la kenn dagg li ngay wax a neex demal <laughs> doxalal. Omar nee na te déjà Omar dafa mu njëkk juumee. waaw Pa la woowee kii te kii Pa Ousmane la. <laughs> ci commencement vidéo bi Pa Moussa te kii du Pa Moussa la. Mm-hmm. Pa Moussa mooy ki am karaw gi. waaw mu ñëw ne. vidéo bi ñu ngi ko defee. ci ci kaso bi ci kaso mm-hmm. xam nga fii nii kenn mënu fay def fenn vidéo yi nga fi nga toog foo ti def vidéo. Mm-hmm. am na ci ñenn ñoo xam ne. ayoo ba xam na leen. Mhm. vidéo fu mu mun fu ñu ko munti defee. ñu xam ko ñu xam ko. Mhm. fu mu nekk ñu xam ko. Mhm. kon vidéo yi mu def Ousmane Sonko vidéo yi mu def yëpp da koo enregistré ba pare moom koy xam lan la terrain bi daf leen a jiitu. ba pare ñoom ñu ñëw toog di wax. waaye Ousmane Sonko def na ay vidéo wam moom lañu tëjoon moom lañu jàppoon moom lañu barricade këram moom lañu seetiwaat waxtaanal ko mu wax leen la mu bëgg mu am. pour waxtaan bi mën a am. ñu fekk si ko ko si. xanaa kon tey am na ndam. ñoom xam lan moo leen war instant bi nii. jéem a xool ba xam ndax mun nañu ñëw liggéey ak jomaay jéem a xool nu ñu ko jàppalee waaye toog commencé gul sax nga commencé ñëw naan def na lii waaye léegi Ousmane Sonko bu fekkee ne dafa wax ci oto yi wax na ne oto seen oto campagne la jël jox ko Ousmane Sonko moo ko wax wala wax ko. moo ko wax bu ma ñëwee ci koy su ah, campagne bi loolu dinaa ci wax. tey président bu yëkkatee xaalis sax nag nga ne. wax na tamit ci moom moom moom ku ko wax ki moom Azalaay ak fan la xamee ki moom Azalaay. te réeroo ngi bëgg am sax nag ndax ñun am nañ ci moom Azalaï non damay laajte moom mii Azalaï kan moo ko kan moo ko inauguré du président Macky Sall ak ah, gouvernement inauguré waaw léegi dama leen laaj président Macky Sall kan moom Azalaï loo ci xam nañ ko ah. bu ko waxaatee man ma ñëwaat wax kii ko déet ko waxaat dina ah. waxaat parce que pareegul xam nga dafa doon di ko woowaat di épargnel ñu loolu temps boobu réew mi amuñ ko dañ jun jublu ci liggéey moment bi nan wax lépp buñ paree ñu liggéey ah, balaa la dóor Pa war a génne nañ ko génne ah, yaa ngi koy liggéey bi moom koy tàmbali commencé liggéey sax jomaay jëlagul fonction waaw mais ñoom na na lépp tàmbali loolu leen nit ñi war a sermonné xam ne lii dem lii doxal réew yow yaa ne da nga bëgg ñëw ñu nekk ci brogue bi liggéey n'est-ce pas loolu nga wax hmm. kon te ñoom ñuy def li ñu def yow daf leen di gën a tardé wal hmm. li mu wax amul fenn foo xam ne boo ko ko wóor parce que ba ne ba nekk kilifa nekk responsable di wax loo wax da ngay waaye loo wax tam bu la ne ah lii foo ko teg nga andi ay preuve hmm. waaye Ousmane Sonko moo moo moo kii di moo woot ñi ngi déggante téléphone moom mi bu sañoon déggante ak Ousmane Sonko téléphone peut-être na nag il n'a pas les moyens wala Ousmane Sonko du ko jël <laughs> mais moom bu sañoon déggante ak Ousmane Sonko téléphone. <laughs> jërëjëf jërëjëf Ngoné ajaratu mami kàddu yi nga xamante ne euh, Omar Sow yëkkati na ko man jàngat nga ci am. ndax yaa ngi may tooñ de ndax yow de lu ñu ànd lu yàgg yàgg war nga xam ne mi am na yoo xam ne du ci tool. am naa la <laughs> du rek man mami ay nopp garmi la yor. Mhm. <laughs> yi fi gar mi laa ciy dégg ci kattanu yàlla daga maa ngi moom sama bopp te it li ma neex it lay tontu rek lu ma naqare du ma ca tontu. <laughs> réveil alal ma di sone <laughs> eh, ah yow la sax ah, waaw kay sa basa bu ko ji waaw kay léegi nag mhm. tey la wax neex rek du dëkk ku nekk di wax ak di génne ay révélation waaye dafa am loo xamante ne dana fàng soxlawul jeex c'est que coow li mooy ñoom perte nañu rek wax dëgg yàlla ngóone mm, mm. ñii nañu dimbali dimbali seen bopp Pape Ousmane Ayoba ñii nañ seet ci yàlla te seet ci yonent bi ñu lal seen i sujaada ci li leen desee ci koor gi ñuy woor te yor seeni i péricrous tey tey tey tey ñaan yàlla mu bañ a gën a ñaaw ndax ñaaw na ba noppi beneen bi ci topp mooy waxtaan am nag waxtaan amul xam nañ ne waxtaan am na waaye borom waxtaan bi sax moom moom dafa dafa mii mu ne waxtaan am na di moo ko njëkk wax wax na ko ba leeral ko ci conférence de presse bu leer naññ ne ba ngeen ma fekkee ca kaso ba ba ngeen daan wax ak man ba ngeen demee damaa woo sama rak mhm. waaw kon kay kooku wax na la waxtaan am na ngeen naan 4 kaat yi fii la jaar ak carapit yeeg njaga njaay yaakaar ne ni dañoo am temps dama ne la régime bu bees bi ñu ne dañoo dugg ci cycle bu bees mhm. man Samba ak Baye Dieye Père ak Antoine sama noppi noppi garmi la waxi garmi laa ciy dégg. vidéo vote bi laa leen Ousmane Sonko di dem aéroport di vote ji. voilà ànd ak euh, ñoom. Cheikh Tidiane Dieye transfert la jël waaw waaw transfert la jël dem vote ji jëlu avion militaire. avion militaire ñoom ñoo koy jël. fii bu ñuy dem ci ci ci wakaam bi. Ousmane Sonko Air Sénégal la jël. yóbbaale first bu Buur News. ba pare yóbbaale ay gàtt koom yóbbaale El Hadj Diaw mii. ba pare ak azalaay bi nag foog nga ñëw ba pare ngoone sax lenn bépp lan moo tax ñoom bu ñu nekkee ci nguur kenn du leen dégg wax bu ñu noppee neexle. ku ci nekk ndax rajo yi mooy perte daa métti de perte daa métti de. boo awee yoonu pale restaurant yi ne foofu yëpp ñoo fay fees dell waaw dëgg la xale jigéen ñu xees si fekk leen fa waaw foofu lañ leen ñu leen ubbil gàddu ko di dem di ñëw booy dem motaar bi kii la fi mu ne amatul teen goone bi sës ak azalaay ñoo ko moom te kenn lijjantiw ko ah waaw nañ noppi ko waaw comme ñoom lan mooy seen problème te nii ak ñaaw rek ñoom ñoom ñaaw plateau bu jigéen ñi ay coow Eh, eh, eh, réer naa de. réer nañu de réer nañu. man ak ayoo ba leerul de. ci ñoom ñu dugal caméra yi biir azalaay mu mhm. ñu dugal ko ci ñu dee nag buñ sësal bana buñ sësal bana. H24. li ngeen xam bari na namu li ngeen xam bari na. <laughs> nga xam dañoo ñëw encaissé si. ñu leen fay fekk si. waaw mooy ñi daan raas guddi. ñu ñi daan toog ci plateau vendredi soir. ñu ñëw di jël si. fekkee day ñaaw day ñaaw rek nañu bàyyi nit ñi ñi ñu comme kii dafa ñëw ku bees waaw <laughs> na liggéey nañ ko accompagner mu liggéey ci jàmm ak salaam bu fekkee ne dañu bëgg mbóot yëpp génn mm. ñu def bay goor rek puna <laughs> na opposition bi génn mën naa nañ nekk opposant dëggantaan rek yàlla bu mu jeex